bi ñu ne euh, dañoo ut dañoo créer spécial unité nga xam ne ñooñu loolu rek mooy si nekk si seen liggéey alal ju ñu def wax fu mu nekk ci réew mi rek dañ ko registré ci onda da département mm-hmm. su boobaa nag euh, ka defoon wax foofu bu dee mm-hmm. ci misaal tey ay doomam bëggoon a jël la mu defoon wax foofu ne dañ ko boole ci alal ji mhm. souvent ñoom dañ ko rifaana ci kaadi koot ci misaal kaadi mhm. koot leeral ne ah, kat bokkul ci li ngeen war a donn mhm. su lii lii la ko seen defoon loolu rek la mën def moom ko koot loolu rek la waaye li ko xaajal nag ci ron ko nag ko ronee ak nuñ ko organisé xam nga bon dafay bi rek ak ni ñuy doxalee mbiru lempo rek waaw ñu ko doon bëgg waaye tam noonu laa waaw xaa ji gannaaw loolu am na loo xam ne maye la waaye maye gi dafa tënku ci jamono xam nga wax fu boo tënkuwut moom bu xasee ba sax rek tënkuwutul ci jamono mook jamono ñuy ànd di dem rek waaye kër gi nga maye wala gi nga wax fu doo ko mën a ah, yow yow mi ko maye woon mayewuloo kër gi mm-hmm. njëriñ la nga maye bii itam noonu la nidu waaye li li ko wutaleeg wax fu mooy dafa tënku ci jamono ñu ko ooyee amra mm-hmm. am ñu ko ay ruquba ruqba ak amra yëpp luga la waaye dañoo def taraaduf mooy eh, dañoo benn maana lañ maa ñaari baat lañ ci benn maana benn firi hmm. moo di ne nit ki may nit njëriñu alal hmm. nit ki dëkkuwaay hmm. ci dëkkuwaay lay gën di ne may ko njëriñu dëkkoo kër waaye nag mu tënk nag may gi ci dund ne feeg yaa ngi dund may naa la nga dëkk fi loolu raqba lañ ko wala omra li tax ñu tuddee ko amra mooy dañ ko tënk ci dund gi li mhm. tax ñu tuddee ko raqaba mooy kenn ku nekk mu ngi bàyyi sa morom xel mhm. mu bu génnee mhm. mu delluwaat ci moom ba boromam kii mayee mu ngi bàyyi xel ki mayoo ndax bu dee mu dellu si ci alalam kiñ ko may moom itam mu ngi bàyyi euh, raqaba sax li ko utee li ko utileeg euh, am na tuuti tuuti ak omra amra daf ko ne may naa la ko suma giir dund wala may naa la ko sa giir dund boobu moom xamul dellu gannaaw waaye raqaba mooy ñun ñaar daal ku ci sa dund njëkk a jeex rek maye gi taxaw na ñoom ñaar ñoo maye bu bu fekkoon ne bàyyeekoon na fii rek léegi loolu dafaa taxaw waaw may naa la daal nga dëkkee suma kër mhm. fekk maa ngi dund mbaa fekk yaa ngi dund waaw ku ci njëkk a dee nag mhm. maye gi das na su ma la njëkkee dee su may doom doon ko mhm. soo ma njëkkee dee euh, mu dellu si suma alal noonu loolu mooy raq baax maye nag amra nag mooy may naa la ko sa gir dund nga dëkk fi nga dëkkee fi mhm. wala su ma gir dund ne man mën naa laa gànt nga dëkkee fi su ma deyee nag bokkut mhm. loolu bëri na sax ci dëkk bi lu muy am léegi nga gis ko tabax këram mhm. euh, famille bi ay maga wala ay rakkam wala ay jarbaatam mooy euh, leen ñëw leen dëkk fi ñëw leen dëkk fi nag li mu firi rek mooy mooy amra loolu itam xaat yi code yi fana loolu dañ ci di am problème léegi léegi nga gis sax ku ci dëkk dëkk bu yàgg dama yàgg mu kilim ne moom. moo ko moom moo moom léegi wala léegi. <laughs> fekk déedéet fekk am laa la woon. yooyu yëpp point la yoo xam ne. bu gën a société bi gën ko ràññee xam nga ñun euh, jullit yi dañu am sàggante. Mhm. yii yëpp dañ ko naan apply ci jamono. ñu dem ba yàgg ñu ko apply te xamatuñu sax cosaan la. Mhm. léegi léeg ndeysaan mu undu ñu jafe-jafe ci biir code yi fekk ñàkk xàmmee gi moo ko waral. Mhm. fu nekk nii am raa Hmm, loolu lu bëri la sax suñ suñu Afrique gi ñun ñun ñun tabaarakala nit ñu nit ñu baax ñun ñoo fi dëkkee kenn du jël alal moom kenn rek ñun ci ñun sax gàcce la yow kenn li nga moom mu xem ci yow kenn rek dañoo bëgg nga bokk say mbokk ci ngay mën am jàmm gisoon naa benn borom xam-xam bu laa wax ne man daal lépp lu ma yàlla nar wala ci li nga des su ma dund su fekkee ne man rek ci la nar a yem yenda bu mu waaw <laughs> dégg naa borom xam-xam bu laa wax loolu waaw loolu ku mel ne alaaji Moustapha Lo rahmatullahi alayhi dégg naa ko yoon yoon bala mooy dee mu ko daan wax ak ñeneen nag ñeneen ñu mel noonu kon nga gis ne ñun euh, da ngay bëgg li nga moom nga bokk koo keneen mm-hmm. léegi-léeg keneen ko ko nag néew doole moo tax maanaam amul fu mu dëkk nga am ay néeg nga ne ko léegi suma néeg bi ñëwal dëkk fi mm-hmm. ba fa dund yem mm-hmm. na wala nga ne ko kaay dëkk fii ba fa suma dund yem yooyu yëpp raqaba bii raqaba la bii amra la benn lañ su ko defee loolu itam maye googu bu jeexee bu ñuy wut miraas bu borom kilimee fekk borom waxee na ko nii su boobaa nañ kañ joxoon mu dëkk na xam ne àqam jeex na fa loolu tam nañ ko leeral léeg-léeg mu jax mu di lépp soo gisee xaat yi ñu bugg ci mu leer dañ bëgg société bi gën a noppalu dañ bëgg itam code yi gën a noppalu ndax yu bëri léegoo-léeg ñàkk leer moo ko dee waral mm-hmm. kon kiñ mayoon mu dëkk lu mu fa yàgg-yàgg su fa amoon téeméeri at sax ndegam loolu lañ ko waxoon mm-hmm. moom loolu rek laay dem mm-hmm. kon waaye li ñuy comme léegi jamono bind lañ allazi allama bil qalam allama insan ma lam ya'lam yàlla dafa tënk mbir ci xalam moy pen kon ñi ngi ñaan ko xamne lolu yang koy defati nga bind ko seyde sax doyut ndax seyde yi man nañooy dee dem bañu tassaro man ngay bëgg def dara qadi yi xaw nawle ñu tew nga sedd lañu ko demam yag ñu tassaro wala sax ñu dé ba di jax ko fee suba boobaa juja su ne ñun dé nañ ba jax wala tassaro nañ Euh, xaccoo a ah, xaju ca te ñoo ko waroon a seete mm-hmm. fu muy mujj mm-hmm. dafay réer xàq ji dafay réer kon dañ bëgg yu mel noonu ñu ko teg ci pen ci teg waaw bind ko ci pen mel ni sax ci nga xam ne yàlla mu koy wax naan isaata daa yantum bi day ni ilaa ajri musamman faktubu mm-hmm. boobu daf santaane na fa mi de te ñu ne isaata bi dafa wax ne daynu boobu sax dafay mel ni mën na nekk rek mu amala isaa isaata amaltum ayu mu amalatin eh. boo xam ne dafa am ah, xuquuq xuquuq yoo xam ne mu nekk na fi seen na ko na ngeen ko kii si kii waaw mm, si kii faktu boo waxaatam wasita si doo shahiday ni min rijaale ko waaw dëgg la mi gis moom yëpp indi na ko daal moom leer ba nga aaya boobu aaya nga dëgg xaadi mu baax mm, ci aaya mu daayana ci la ñuy nattee ne mboolem xóot yi nga xam ne xaq moo ciy juddoo right mm-hmm. dañu war a sikkiyoo right yooyu bind ko bind ko moo xam mm-hmm. su fekkee ne bind ko du undi sa jafe-jafe xam nga mm-hmm. léegoo léegi tam nag mu ku dem ci marché ba bëgg a jënd dara. Mhm. bi nga waxee da nga war a ñëw bind. Mhm. xam nga dafay xala doy waar. waaye li ñu bëgg a wax rek mooy xàq joo xam ne bu ñu ko bindul mën nay sànku. waaye xam nga nag euh, mhm. yi nga xam ne moom bu ñu ko bindul tam du sànku. boo taxul ñuy wax. waaye xala xàq ji ñuy wax nii ci yooyu la bokk yi nga xam ne bu ko bindul cànkute wala oote ca mën na ci am. kon koo xam ne yaa ngi dëkkale di sa mbokk. ci sa dëkkuwaay boo xam ne yaa ko moom. te jublu ci liñ ko waxee nii. manam dundam e mm-hmm. nga ko may mu dëkk wala yow sa dund rek nga ma nga ko garanti na nga leeral loolu ci bind su ko defee mu leer mm-hmm. diw de suma alal sangam may naa ko mu dëkk fa fa dundam yam mm-hmm. bu dee nag doomam bokkuñ waaw mu leer nañ mu leer nañ lee waaw wala nga ne man de diw may naa ko mu dëkk suma dëkk waaye sangam ba fa suma dund yam waaw ba fa suma dund yam yëpp dagan na su boobaa loolu amra lañ ko tuddee may la fu la may la waaye maye gi boo ko seetloo xaat yi. dañ ko tënk rek ci dund. waaw waaw ah, xam nga waxoon nañ fi sànq ne ci date yi passé woon maye gi nga xam ne mu ngay soog a mën a dox bu dund jeexee. Mhm. boobu wasiya la. muy wil maye gi nga xam ne dafay sax ba faw te jëmm ja bokkut ci am njëriñ la rek moo ci bokk. Mhm. mooy waqfu.